gis ngeen noonu lañ leen koy defalee ci wasaare làmb euh, su ma amoon kàddu yu mujj looyu tàggatoo ak lan nga ñuy wax lan lay doon. li may tàggatoo mooy di gërëm la de Guiers bu baax ci cër bi ma jox di gërëm écrit waalo yëpp man na xëccoo mu monument man liiru Diane bàyyi laa ci moom wala may mag ci moom te ku sonn ci biir géejaway la kon cëru monument jox naa ko bu doon lijaasa mag ko signeel man baayu mbër la laa di magam wala may baayam wala may nijaayam man xëccoowuma cër ndax surtout yore jow booli mbooj laa sawaalo sama maam yi ñoo xeex talaatay ndeer man buur la bu ma dul woon buur passé naa fii bu ma doon jaay sama ngor passé naa fi bu ma yoroon esprit politicien passé naa fii